yaraw ci mboolem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg a xibaar yu wóor te gaaw bale koog wér gaaw gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg te également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53. Cheikh Fallou asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayidna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man wala ñu ngi siyaare kilifa yépp rawat ci calendrier maçonnique bi ku ne xam na ne Serigne Touba mi ngi doog am téeméeri at ci kaw suuf ci biir suuf ci zahir te ku ne xam na ni ñoom dañuy wax ñoom franc-maçon yi dañuy wax toujours ni gépp kuréel goo gis bu xasee am téeméeri at lu mu màgg-màgg day daanuwaat waaye dañoo gis ni yoonu murit dafa am téeméeri at di gën a kawe di gën a yëkkatiku moo tax ñu taxaw temm ngir attaqué ko wala yàq yàq li nga xam ni mooy njàngaleem Serigne Touba moo tax mu laal li gën a rëy ci yoonu murit muy mbindum sëriñ bi sëriñ bi mbindam bi nga xam te ne wax na ni moo raw suyoox yi def tarbiya ak yi def tarxiya am mbindam ñoo leen gën a gaaw ci gën a gaaw ci yéegal nit ba àggale ko ci yàlla mbind moomu la jël attaqué ko wax ni mbind mi am nag manqué war nañ ko mën a corriger war nañ ko mën a xoolaat daa mag mu waxoon sëriñ bi ni ko yaruuxu lahul maana kariqati lafzihi nee na sëriñ bi ay waxam maanaam ak baat yi amul lenn lu ci lii mën a contesté ndax neexaay bu mu neex ak am solo bu mu am solo lii nag yàgg na koo def moom moom Omar Diagne yàgg na koo def lool waaye nag li kulli shay'in sabab wa li kulli shay'in ajal mbir moo gis am na fu muy yem ndax murid daan nañ romb ay waxam jamono bu nekk muy wax lu met lu koy métti lu seen biir yi nekk waaye bu ñu jógee tey di ko métti loo nii sëriñ bi ci boppam moo ci dugal loxoom ndax murid bu nekk fu mu mën ci kaw suuf mi koy métti kon nag nii mu méttee murid yi naqari leen naqaree leen noonu la naqaree suñu borom subhaanahu wa taala noonu la naqaree yonente bi sallallahu alayhi wa lii nag bu mu am ci kaw suuf li ñu daa def mooy ihdaaru dam la ñu daa def maanaam dañuy wax ni diw mi wax lii kat deretam dagan na kon Omar Diagne bis naka bis ba mu të tëbee di wax ci Sëñ Tuubaa boobu la deretam daganoon képp ko rey amoo amoo amoo fitna amoo ab àtte bu ñu la def ci diine la tax mooy innama jazaau alladina yuxaaribuna allah wa rasulahu wa yasauuna fi l ardi fasaadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaa aydihim wa arjuluhum min xilaaf aw yunfa min al ard imaam Baxawi bi firi aaya bi neen daa mel ni suñu borom daa mer mi wax fii Omar Diagne Omar Diagne na ci ñooñu la bokk an yuqattalu maam ñu rey leen rey goo xam te rey gu métti lay doon aw yusallabu mbaa ñu wékk leen aw tuqattaa aydihim wa arjuluhum min xilaaf wala ñu dagg loxo càmmoñ ak tànk ni joor aw yum fa minal ard wala ñu génne leen moom nag loolu dal na ko ndax yaakaar naa fi ne nii moom mu génn dana jafe lool mu génn dem ci ab jotaay dana jafe ci moom lool ndax murid yëpp nga ko jàppal mer te ku jàkkaarloo moom la nga fas yéene mooy jëflante ak moom kon nag ñuy wax ni ab ragal la nag ndax ab ragal mooy def li muy def ndax li si Moustapha wax léegi nii karo bañ ko tiimee wal fajiri muy lox ginnaaw yàlla man mii maa tax muy dundaat ba tey te ba mu la commencé di wax ay wax ak di kiyaat kon lii muy wax nii lépp ab calendrier la boo xam moom mi koy wax sax comprendre li muy wax ndax ñi koy wax loo muy lobby maçon yi nga xam te ni ñoo xam ne sa biir Sénégal ñooñu koy wax loo loolu maanaam seen mooy tëdd miir yoonu murit tasaare yoonu murit ndax gis nañ ni àddina bi fi ne nii fi mu toll nii fépp a jaxasoo ba mu des Sénégal te li tax jaxasoowul mooy yoonu murit te li tax jaxasoowul mooy sëñ Tuubaa ko mbindam mbindum sëñ Tuubaa moom nag mu jël ko di ko attaqué ak jumaay sëñ Tuubaa ji nga xam ne sëñ Tuubaa daa waxoon nii bala maa bàkku sama jumaa ji àgg bañ ma koy jullil ci laay bàkkoo man Ahmadul Xadim kon nag defi na àddina defi na monde bi defi na yoonu murit ñuy wax ni kon ñu ngi interpellé état Sénégal lu mu gën a gaaw mu jël ay mesures ci waa ji ndax bu bàyyee bañ rey ko mbaa ñu laggal ko su boobaa moo nekk responsabilité bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaraw ci mbooleem lu ay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg a xibaar yu wóor te gaaw bale koog wér gaaw gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg te également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53. Cheikh Fallou